bismillahir rahmanir rahim allahumma salli ala sayyidina muhammadin fatihi ma ughliqa wa khatihi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim wa radiyallahu ta'ala an qala sayyidina sallallahu alayhi wa sallam bismillahir rahmanir rahim kitabu ko rahman kadali awlina min siyafiya arahim kadali awlina ala xaraf la xasee ak moom ñu naan gëm leen ñu gëm yàlla pexe nañ la pexe mooy nit ki mu gën te nekk ci teew dafet boo xam ne doo doon joxe yàlla moo bindaan gannaaw ak loxoom ba mu ko bindee ba mu mat nga ba yaal mu yaa ñu yaa la ba yaa doxam ñoom téeméeri junne at mu ne ko ah jàmm mën la tànni mu tànni mu ne ko mën a tànni mu ne ko. lu day naan mu ne ko tamit comme sama yaay yermande te yermande yàlla jaamu dayo ndax lépp melo wax ji gën yàlla jana nga xam ne yàlla amul dayo melo amul dayo moo tax aljana suñ ko gis amul teg rek bu tànn ba nga xam ne amatu tàgg mboolem ñu dëkk aljana ñëpp amul kenn ku nekk ci tàgg ba waaw ñëpp ci dëkk rek rek mu ne ko waxal nag yow aljana mu ne xalam daal mu ñëw na mu ne fexe na lépp koo xam ne gëm na yàlla bu mu ko maa defee ñooñu taxaw ngeen Adama yàllaa ko bindal loxoom aljanna yàllaa ko bindal loxoom garabu tuuba ca aljanna yàllaa ko jëmbatal loxoom ñu yàq yàlla teral na leen rek ñu nga lewul leen kenn rek moo tax képp koo xam ne foofa ngaa dëkk aljanna koo ko taxee rek yàlla li ci yàlla boole ana ñoom nag melal na leen juróom yaari melo yoo xam ne ku ko mel daal yaay ñi nga xam ne ñooy aljanna ñooy ñu taxe ñu gëm yàlla nga dina ñaan ñoom ah jamono waaye tooxal la ñu yàlla ci dara ñu ci ci ñu ñu jëf ci nelaw jëf mooy ñi nga xam ne dañuy tooxal yàlla ci seen julli de ndax ñooy yooyu julli ya dëgg dëgg ndax julli doo xam ne am na tooxal yàlla rek julli ñëpp fa def julli yenoon ci ne aji julli dafay déyaale boromam kon nag suñ julli ci xamul ne ñu teew lu mu ne yàlla ñu koy déyaale ñu ngi teew ci kanam yàlla kon julli ñëpp ko de torox na yàlla nag ci baati nag jaam bi lay aaje nag nga xam ne soxoroon kooku torox na zaahir la jëriñ dal ak xol bi torox na yàlla bokkut waaye xol bi torox na yàlla mën naa jeexital ci jëriñ jëriñ itam torox na yàlla de jëriñ itam yaru ci torox na yàlla bu yàggee mën naa dugg xol bi torox na yàlla de waaye nag torox na yàlla ji namu ci julli mooy teewal yàlla ci sa xol rek cër lu nekk cër lu nekk toroxlu toroxlu lam yi mooy ñu jàng alxuraan toroxlu nopp bi mooy ñu déglu li ñu jàng toroxlu xol yi mooy mu teew fa kanam ak yàlla ga toroxlu ñaari tànk yi mooy mu taxaw leen di jub ay ko dëggal toroxlu loxo yi waaye mu fas yaay la xool teg jamonoyam ci xolam teg lay joram te kaw jamono la nañ ñu jàng taxawal kanam ko ñam toroxlu bëri mooy ñu bañ a teel bañ a def lay jor ak jamono ah itam du weesu fa nga xam ne fa la fa la yéen bi dal du ci jóot loolu moo war cër yi xol bi nag ci teewlu li nga xam ne moom lay jàngale boo ko boo ko defee ba nga tëjee yàlla yàlla ndax ku ca teel yi loolu ñu naan laa araf la xattaxena al mu'minu way gëm nga rek ñu gëm yàlla pexe nañ la pexe mooy nit ki mu gën te nekk ci teew dakkat boo xam ne doo doon joxe yàlla moo bindaan gannaaw ak loxoom ba mu ko bindee ba mu mat nga ba yaal mu yaa ñu yaa la ba yaa doxam juróom téeméeri junne at mu ne ko aljana ma la tànni mu tànni mu ne ko mën a tànnil mu ne ko lu day naan mu ne ko tànnil comme sama yaa yermande te yermande yàlla jaamu dayo ndax lépp melo wax ji gën yàlla jana nga xam ne yàlla amul dayo melo amul dayo moo tax aljana suñ ko gis amul teg rek bu tànni ba nga xam ne amatu teg mboolem ñu dëkk aljana ñëpp amul kenn ku nekk ci teg ba waaw ñëpp dëkk ñoo rek rek mu ne ko waxal nag yow aljana mu ne xalam daal mu ñëw na mu ne fexe na ak lépp koo xam ne gëm na yàlla bu mu ko maa defee ñooñu taxaw ngeen Adama yàllaa ko bindal loxoom aljanna yàllaa ko bindal loxoom garabu Tuuba ca aljana yàllaa ko jëmbatal loxoom ñu yaatu yàlla teral na leen rek ñu ngi leen jëm kenn rek moo tax képp koo xam ne foofu la ngaa dëkk aljana koo ko taxee rek yàlla ñu ci yàlla boole ana ñoom nag melal na leen juróom yaari melo yoo xam ne bu ko mel daal gaa yi ñi nga xam ne ñooy aljana ñooy ñett rek ñu gëm yàlla def na ñaane ñu ñoom ah si ma la waxee tooxul la ñu yàlla si sa la ñu dëkk bi jëlee ñu dëkk ci meloo njëkk mooy ñi nga xam ne dañuy tooxul yàlla ci seen julli de ndax ñooy yooyu julli ya dëgg-dëgg ndax julli soo xam ne am na tooxul yàlla rek julli nekku fa de julli yéen ñu ne aji julli dafay deeyaale boromam kon nag suñ julli su nga xamul ne ñu ngi teewlu mu dee yàlla ñu ngi deeyaale ñu ngi teew ci kanam yàlla. kon jiw yi ko fa de toroxlu yàlla nag ci ci baati nag jàmm day aajo nag nga xam ne soxoroon foofu toroxlu zaahir la ci dal ak xol bi toroxlu yàlla bokkut waaye xol bi toroxlu yàlla mën naa jeexital ci cër yi cër yi tam toroxlu yàlla de cër yi tam yaru ci toroxlu yàlla bu yàggee mën naa dugg xol bi toroxlu yàlla de waaye nag toroxlu yàlla ji na mu ci julli mooy teewal yàlla ci sa xol rek cër lu nekk cër lu nekk toroxlu toroxlu lan yi mooy muy jàng alxuraan toroxlu nopp bi mooy muy déglu lu muy jàng toroxlu xol yi mooy mu teew fa kanam magal yàlla ga toroxlu ñaari tànk yi mooy mu taxaw leen di jub ay ko dëggal toroxlu loxo yi mooy mu fas yaare loxoom teg sa moyen ci xolam teg lay joram ca kaw jamono la mais ñu jaaxal saxaar yi kanam kanam torox lu bëri mooy ñu bañ a teel bañ a jafe nga joor ak mooy ah itam du weesu ba nga xam ne fële fële yéen bi daal ñu ci jóot loolu moo war cër yi xol bi nag ci teewlu li nga xam ne moom lay jàngale boo ba boo ba defee ba nag ñu yaale yàlla ndax ku sa teew yi yàlla ñu teew ci sa kanam nga xam ne yàlla ngay waxal boo ne iyaaka naabudu yàlla ngay wax. boole yi yaakaar naa saa yéen yàlla ngay wax boole yi dina siraatal mustaqiim yàlla ngay wax loolu mooy julli de waaye su fekkee ne yaa ngi julli waaye sa xol ci leneen kon julli ga waaw jëmu ci yàlla de te yàlla naa moo looy jeexu ku teew ku màgg ni man ana leneen la war a jeexu de jaamu yàlla yi ci def yëpp ñoo gën a yomb julli sarax man ngaa génne sarax sarax da doo wax lu yàlla ci waxtu génne sarax da doo teewlu yàlla te du tere sarax sa tabbi ci tabwaayam ndax jëriñu ci ma ngërëm nit ñi ma jëriñ ko rek loolu moom la sarax doon jëriñ kooku boo teewloo boo teewlu jàng ko koor boo xam ne day teewlu woo yàlla itam nelaw yi ne ci koor moom yàlla rek la ñu ñaan tax na ne moom soo teewlu booy teewlu yaa ngi woor ak coono yu bëri ci nekk tax na ne moom ku ko def boo teewlu itam du ko lor ndax yàlla rek la ñu ñaan waaye julli moom soo nekk du teewlu yàlla rek ci jaamu ba rek yonent na nag saytaane dafay soxla woo ay soxlaam fàtte jaam bi fépp taxaw di julli su xasee kabar nag ba dara desul di julli mu ñëw ci ci ci xolam de nag fàttaliku nangam fàttaliku nangam fàttaliku nangam benn julli ko julli dajeex te du jot teewlu yàlla su ko defee amul julli julli yàlla ak jaamu këram dara mu yàlla wutale lu may teewlu yàlla ci waxtu julli wala su fekkee yaa ngi julli yëguloo sax yaa ngi julli teewlu wala ngay daal xanaa yaa ngi xalaat leneen teewlu wala yaa ngi sa kanam borom teewlu wala sa borom ngay waxa te julli moom du dara lu may ci dara ñaan yàlla ak kabar magal yàlla ak sabal ko soo nekk di teewlu maanaam yooyu julli la rek kon di jaamu fa te yan xamoo julli bi ak li di jaamu këram di def rek soo nag ci xol lay xol la nekk waaye yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mas naa ñu ci julli jooju nga yor ak jamono mu ne xolam toroxlu yàlla de su xol ba toroxlu woon kon cër yi itam toroxlu rek tax na ba toroxlu xol bi mooy li ñu bëgg waaye mën naa jeexital ci cër yi rek amma xol bi toroxlu dul yàlla kana xol baa ngi sàggan yàlla yàlla di ko topp jenn jamono ba noppi nag borom bi nit ñi nit ñi waa ak toroxal ay ceeb nooy baat kooku moom melaw naa fekk la rek ñu dina boo xam ne teewlu nga yàlla nag ci sa xol ñu ngi say cër seeni jafa te réew toroxlu nga moom mat na Omar ibn Khattab moo gën a toroxlu ci jamonoom te bu waxee kaddu nga nga dégg ko fu sori ñu dox kenn mënu koo jot nit gaaw kum dóor nga bëgg a dee ngi dooye te réew doon mu toroxlu yàlla de waaye nag ci njëriñ soogoo mboolem teggin yi nga xam ne moom moo war jaam diggante ak boromam ci njël benn toggoo dana ci jëriñ rek su fekkee yaa ngi toggoo toroxlu yàlla ci say cër su yàggee mu àgg ci sa mu àgg ci sa xol ba nga toroxlu toroxlu ci nga xam ne moom dañ bëgg rek ah jaam boo xam ne sax dafay sóobu jëm ci boromam ci njël benam ñu ngi mel ni garab boo xam ne picc dafa ñëw bëgg a dugg ci jëlal ma boo xamee ne picc yi jege na garab jërë ngeen ne bànqaas sa jaayee picc ma dafay daw da di dugg de waaye su dalee ca bànqaas ba mu ne tekk mu yor yéen ba ci jëlal ma bëgg dugg ci biir lëmm garab ga jaayee woon ba daa ngi dugg ci sax picc ma jëlati baat yi noonu la mel li ci rëdd yàlla di tàmbalee ñëw rek te torox lu la dafay wëññeeku waaye soo torox loo ba mu dëkk nag bu ko see dëkk nag moom dootul dootul toxu rek waaye torox waaye gëm na yàlla ñooñu taxe nañ def àll si nañ ñaañoo ñoom moo ne ba na wéy dëgg la ñu naan ndax ñoo ne ci mosoo ñu dem yàlla mooy ñan mooy ñi nga xam ne dañuy dëgg lépp mboosoor de mboosoor mooy wax jaamu njariñ ak jëf ak jëf jaamu njariñ de lépp wax joo xam ne seet nga ko yàlla ba yàlla nekkalu la ca xam nga jéem a wax dina nekkalu la ca soo ko waxee rek mboosoor la rek yonent na nekk na ci rafet gëm yàlla nga natt ci lépp loo xam ne sa njëriñal ak ña nekk sa njëriñal alaxira nekk jëre ko ak wax yi caaxaan yi lay waxe àddina wax sama àddina wi ne yëpp ci ndax bu la bokk rek day wax waxal lu lay jëriñ tudd yàlla wala liggéey boo xam ne boobu daf lay jox dërëm boo dundee su fekkee ni yàlla yàlla nekk ca dërëm boo dundee nekk ca bul ko wax bul ko def de ndax bu la rek wala dina am ñaaña comme ñoom baa ngi doon way joxe dañu ne zakat ci asaka rek ak ñi nga xam ne su ñu amee seen alal génne ci asaka ak yàlla de wala dina am ñaaña mu ñoom ak su la wax lañu ci borom yi ci fay seen de ak ñi nga xam ne dañuy wati seen seen fay wala du xaram illa ala fañi la ci jabar seen dañu wati seen fay wala lu may seen jabar yoo xam ne dañu leen a fekk aw ma malakat yi jëla moom la fay ma moom lay joxe wala ñuy moom yoo xam ne ñoo ko moom de yaa ngi dañu xaram na loo xam ne yaa ko moom sax ñu ci leneen rek jëndee ba moom wala jigéen joo denc ñooñu ñoom sax ngaa ba moom ñoom la ca am bakkaar lu ma yéene ñaari jigéen war ngaa caa wax sa tey dafa ci wax sa tey kàddu gi ci moom ñu ne rek te ñu ne moom naka ñaam nag ay ko maloon ñu ne du du ñu ñu yàgg te dikkal leen am naa jabar ak loo moom kooku moom na mu ne ca daanga rek sama nit sax ak sax lu mu war a saari ko lu mu doole nag walaay te ñu ne gars yi fu mu ñoom ala loolu ñoom ñu ngi ci xaaral ñu ci xaaral de fu la fi xaar yooyu nag ñu ci xaaral léegi ci haram de mooy muy laal jigéen bi muy sa jabar muy sa taara laal góor ci dubb wala ñi nga xam ne tey dañuy mën a gisee loxo de ñoom ñoom la yàlla wax ne ñoom jéggi nañ xalaat jëm ci haram de wala si naa ñaanee moom ñoom raxoon way sàmm nañu li amaana ci ci kóllëre seen waa ak ñoom kóllëre seen de ak ñi nga xam ne kóllëre ga dox seen diggante seen borom dañ koy sàmm mooy julli ak yi ci topp kóllëre bu dox seen diggante jaamu yàlla itam dañ koy sàmm de mooy dénkaane waaw ak lépp luñ la xoolu de ak xàpp wala si naa ñaañoom ñoom ñu xaatu sama danañu wattu ala salawaati ñu ci julli seen ak ñi nga xam ne dañuy wattu seen julli ñu baamu seen jëkk la ñu jëkk daf ne woon ne torox lu ci seen julli loolu ca biir julli la wattu julli nag ca biir julli la de mooy pareel ko balaa waxtu waa jot nga julli ko ca waxtu wa kooku mooy mooy wattu julli ku soxla nag mooy ba nga diggee ci julli la nga baaxul yàlla de walaay te ñaare gaay mu ñoom alwaari do ñoo di way ganna ala ci ñaan yaari do dañu ganna so do fa jare do do de um ñoom xaali do way gel ge jaar ge jaar ganna de ñu boole mere ñu ñu waxal ko ko dara wati ñoo ñu ñanga xam na dañu ganna jana do do de te dañ cey gel do wa jaar jana ge de jaar jaar jana dara jaar jana ge dara ka ci lañ bokk de mooy gën ko ya jana daal ci leemo yàlla santaane na ko na ne ak mu salaata julli leen te iqaamatu mooy nga julli ko julli di jub kenn mu ne itam nañ ko julli ci mbooloo war ka ma maaraakeen ne julli laan la julli kër moo tax bi ñu sunnaal julli nga di ko julli ci mbooloo ma yonent ne la salaata li jaaril masjid ila fil masjid ila li masrin ci dëkkal jàkka amuloo julli lu mooy sa jàkka ja dara nga xam na na nga am sa kawaral borom gàncax nag kooku waxuñu ko mu santaane ne nañ ko julli ci waxtu inna salaata kaanat alal mu'miniina kitaaban mawquutan nee na julli farataal nañ ko ci julli bi te sàkkal ko waxtu julli ko ca waxtu waaye ni mu santaane la ñett yi te ci noonu fi saa seen xaasiyoon ñi nga xam ne dañuy toroxlu ci julli ku boole melo yooyu de ñett la ñoom la yàlla wax ne ñoo ñoo moom arjana firdawsi yonent sallallahu alayhi wa sallam ak ña ko topp yàlla ñu ci yàlla boole topp nañu ndigal yooyu yëpp yàlla tudd na leen inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adnaa min thuluthayi al-layli wa nisfahu wa thuluthahu wa taa'ifatun mina alladhiina ma'aka yonent bi na nañ ko ko sante moom mbooloo mi nga xam ne xam na ñoom moom ci diine woon topp ndigal yàlla ñooñu la yàlla tudd ya julli nañ te julli nañ ko yàlla santaane waxtu ne ne yooyu waari soo yi nga xam ne dañuy doon firdawsi rek am na ñu bañ Abu Jahl mooy seen bopp ak képp ku ko topp bañ a julli ba gën yàlla ñooñu ñoom képp nañ li yàlla santaane julli yëpp bañandoo nañ ko benn yoon yàlla na fala sadaqa wala salla walakin kazzaba wa tawalla dëggalut waaw julliwut ñooñu itam yàlla tudd na seen ak mujj laaj nañ leen ca safara maa salakakum fi saqar ñu ne lan lam naku minal musalliina ñu ne dañ daaw julli de moo tax ñu dem safara de moo tax jullee ngoog képp ku julli di jubal julli rek yàlla wax na gana nga jëm képp ku bàyyi julli jëm na ci beneen islam nga safara nga jëm ñun de ala di julli de waaye ñàkk julli ñu dig laa jana nga jëm ko ndax passé wu loolu de wala xar xalax naa nga xamee nag ne yàlla sant na julli bi li nga xam ne moo leen di may saxee àllaaxira mu indi tegtali wéetam de bindal doomu aadama la jëkk wala xar xalax naa bind na mu insaana aadama Yàlla suñu mu tukkee ci aji sell min mu tukkee ci ban yàlla bind na Adama seen baay jëlee ko ci ban boo xam ne ban buñ tabax la jëm wow ba mel ne xeeri poti xeeri ndaar ci ban bu sell nga xam ne doo ko yëngalee muy cëram cëram keneen mu ne min faqaarin léegi ñu ngi bàyyi ko ci ban ban boo xam ne mooy poti ndaar yi de Fakaaru suukaraa ko léegi ban ci luxa ban ci cosaan ndox daf koy sooyal boo xamee nag ne ban ba tabax nañ ko lakk ko ba mujj bi ci seen ndox kon am na ci dër moo tax yàlla tudde ko fakaar moo tax mu tudde ko fii itam ne ban bu sell la ban la woon boo xam ne ndox mënoon na ko sooyal léegi nag lépp ci ko ci kaw ban ba mën a denc sax ndox ban bu mel noonu dañu binde Aadama ma jaal naa ko sunu def ko moom doomi Adama di ko doon wax dëgg yàlla bi sos bi yàlla sos doomu Adama ci dina ci nelaw yu bari ci dina ko mu bàyyi ko ci ban mooy Adama ci cosaan doomi Adama nag mu gis leen ñu bàyyi ko ci loxo mageen danaa ba ñu di lumb danaa ba ñu di soo danaa ba yàlla bind ci def ci ay yàq yoo mu aw yàq aw aw roxo ay danaa ba mu def ci yàq yoo mu sëpp yàq danaa ba mu war di yàq aw yàq danaa ba nag mu dawal jarawaare juróom yaari nelaw yoo xam ne benn doo jël maram ma bala yàlla jaaral doomu aadama soo ko bind de mu soog a nekk nit ka ba muy mu jël moom nag laaj yi dana ko wax ma ne ko mbare saa yi gàllam ma ñu toona du doomu aadama yi mbëru mbëru muy daw dawal muy sooñ sooñ yàlla yàlla mën na ko muy la xam ne muy mu jël ñaawam ay rek ñu yóbbu ci bànqee kon bindee aadama mu bàyyi ko ci tamit su ma jaar naa ko pour def doomu aadama jël nit ngir sal aadama nag ñu ko doon ñu doxal ko mënuñ de doomu aadama moom ci loxo mënuñ la jógee baayam ci suuf rek la jógee woon moom nag mu jógee ci man yi te bi mu jógee ci man yi itam dàqwante wu rek moom ci suuf la jógee ndax man yoo ngi jógee ci xañ bi xañ baa ngi jógee ci kàtt bi kàtt maa ngi jógee ci gàncax bi gàncax gaa ngi jógee ci suuf te xanaa doomu aadama mooy suuf rek ci araare ci sax waaye mat yooyu ñu daal di nëbbu man yi mooma dañ ko wala xale ya tey góor ga waxal na ko ci romam jigéen ja yàlla am ko denc ci barab bu nëbbu seetal bi nga xam ne ku jóge ci xañ bi xañ baa ngi jóge ci kaf muy kaf maa ngi jóge ci gàncax bi gàncax gaa ngi jóge ci suuf te xanaa doomu aadama mooy suuf rek te xalaat ci sax waaye mat yooyu ñu daal di nëbbu man yi mooma dañ ko wala xale ya tey góor ga waxal na ko ci romam jigéen ja yàlla am ko denc ci barab bu nëbbu seetal bi nga xam ne bilam de mu gën a min moo gën a nugg ci yaramu doomu aadama bi ndigg laan ko féete gannaaw yàq yi xam ne dara mën nga jaar foofu baax bi ci moom ci kanam tànk yi wër ko ak biir bi lépp luy daal luy daal mën naa daal luy te te doo àgg fa dara ba ñëwul ma nekk fa gën a mujj ci yaayam foofa la ko yàlla denc te dara bañ a àgg ci moom lu koy lor yàlla yàgg naa ci teewal nit ki mu nekk moom man yi ma foofa rek barab bu nugg nekk ca biir romb la waaw nekk ca biir te fi tamit dugal te fi tamit dugal nekk ca romb la waaw romb la yàlla denc ko waaw seen naq ba digg la féete ko gannaaw tànk rek seen ci def féete ko kanam di ko waxtu mu ne ci barab bu ñoŋ su ma xaar xanaa topp na bind lu ko topp tant ba ala xaral ma ñu lumb ba xayta ma ñu su wàccee ci romb ak jigéen daa am juróom-ñaari fan nga daal di gis bu xonk nekk ci digg ba nekk ci wetam lay joor ga te ne ci digg bi bu yàggee mooy roqal bi ci wetam lay joor bi ne ci digg bi bu yàggee mooy doyar bi ci wetam lay joor bi mooy ne xol bi dañ nekk ci bopp ba mooy doy róor bi kon balaa am ay fan rek lépp far nekk lumb deret lépp xonk seetal man yu ñu mu sotee ko juróom ñu mu muutee deret di ko yóbbu ba nekk deret fakaaf naa ko mbinda ala kadara lumbu wa mus ka fan mu di suuf gannaaw ba lumbu dara laal lumbu dara wa mu jigi suuf yaa fu dëgër dara lumbu dara mu mu dal suuf yaa fakaaf naa ko mbinda ak mus ka fan suuf wa insaanan mu di yaa gannaaw ba yàlla def ko mu di yaa loo kondu lu nekkoon ndox ba ci démb gannaaw ba muy lumbu dara gannaaw ba mu di suuf léegi muy yaa woo kondu ba fakaaf naa ko ñoo ba ala saama yaa yàlla man yaa yàq yooya gannaaw ga yàlla wadd ko yàq wadd ko yàq wadd ko der muy jëndi doomu aadama nag sax su ma an saana aw takk na ko soxal kan bi laa xara geneen gannaaw ga yàlla jubli ca bind ko muy meneen bi ne mu wuteeg mboolem taw bi ñu jaaroon yëpp tabaraka bari na yow allah yàlla sama xarit da ngay jënd dara ngay jënd yëpp saa fexe buur bi mën a def lii ak mu de ndoxam ma nii gannaaw ga mu di lumb gannaaw ga mu di suuf gannaaw ga mu di yàq gannaaw ga yàq booba ñu wadd ko yàpp gannaaw ga ñu wadd ko jar ko xam ci xalar dal ci dawal woo nag mu nekk di ndindëb gannaaw bu nekkoon di jamaa xam ngeen ne ci man loolu kooku rek yoo ñu di ko jaamu de ko bu dee ci am la dëwee na sama mën a jaamu dafa ni yàlla bindee nag doomu aadama bindee yëpp yàlla leen bindee waaye bindee yëpp doomu aadama ci gën a mag bindee te doomu aadama ci gën a rafet bindee yàlla na bind na leen ci bind ba gën a rafet ba mu koy bind pareel na ko lépp cër loo xam ne war na ko soxla tànk yi muy doxee ànd naa moom loxo yi muy jàppee ba yi muy gisee nopp yi muy déggee lan yi waxee xol yi muy jàppee yëpp yàlla bind na ko ba mat te yooyu yëpp ay cër la yoo xam ne nit ci ñetti téeméeri cër ak juróom benn fukki cër ak ñett la am cër lu nekk yàlla daf ko toggaleeg morom ma ba cër yëpp booloo bu bind ko muy gën a jëmm te bind ko ban bind bu dëgër itam wax na naanu nanu yàlla bind na doomu aadama wa sadar naa afraho lu def ne bind na doomu aadama te bind ko bind bu dëgër seetam mbindee ni ni yàlla binde doomu aadama ni mu wutal ni mbindee ci def dafa cëri cër lu nekk dañ ko bind bind bu dëgër we ko fam fam sax we bu dëgër bu dëgër googu amuloon da nga gis ci dox fam yàgg loxoom la cee forot ndax kenn gisagum na ko nit mën naa dox ba mu yàgg ban tànkam weccee korot nit mën naa dox ba mu yàgg bëtam weccee korot yooyu yëpp yàlla bind na ko bind bu dëgër ba nga xam ne loolu yëpp du ci am ñu ñu ñuy def day da ngeen ci loolu parce que buy dox ba mu yàgg tànk ba weccee ko gis nañ ko ba tey wala leneen weccee ko waaye nit buy dox ba mu yàgg dara weccee ko ci moom kenn gisagu ko mooy dëgër bind bu dëgër boobu yàlla wax ne bind na ko doomu aadama cër lu ci nekk dafa dëgër kenn ba noppi ñu boole ko boole bu dëgër nit ci taxaw nag moom itam bi ñu mbindee moo xam ne tey mu dëgër la mu mat danañ wax ne bu ñuy wax lu dëgër dañuy wax dëgër ba mel ni lañ ko ñëwul lañ ko ñëwul safara ko gën a dëgër ndax lañ boo ko toggee ci safara rek ba mu xonk cay boo dóoree rek fekk mu nooy de safara mën na ko nooyal xanaa kon safara gën a dëgër lañ ko ñëwul safara ndox boo ko doole fuuf boo ko jëfoo tey mu ne gën a tey ndox ñii ñu koy yenu ñu ko soxoog moom ñu ko sotti fu ko soog moo ko ëpp doole fuuf ñii ñu ngelaw ñu koy màng ko ëpp doole fuuf yooyu yëpp ngelaw ngelaw ak yooyu yëpp doole ngelaw nag doomu aadama rek a ko ëpp doole da nga gis ngelaw li rëdd bi daanee kaaf da nga gis ngelaw li rëdd bi daanee digg garab da nga gis ngelaw li rëdd bi daanee xasket waaye ba nga gën a tuuti su taxawee ngelaw moom ubbi ko di gërëm nga taxaw moom taxaw de ngelaw mën da daane nit nit ku taxaw yàlla bind doomu aadama bind bu dëgër boobu loolu bokkut ak bët gis bu mag dam ko jox bokkut ak dégg bu mag bi ko jox bokkut ak xel mu mag mi nga xam ne moom la ko jox rek kooku ne yow ñu jaam ko ak xéewal bi ci topp na nga xam ne bu yemoon boobu rek nga daldi dee bët bi jot mu àndal la rek la moo la tax dund ba léegi su may na ko topp nit na kay yéen laata saa yu si gannaaw loolu la may doon way dee yende waaye nag ila yàlla bindee bind bu mat boobu soo sant xéewal ak bind bind bind baax na soo ko weddee itam ma ngi lay nekk sa ba mel rek yàgg yàgg da nga dee amul kenn amul kenn ci doomu aadama ku bàqalam di ñàkk a dee nit keeg baram bi foofu la ñu mujj su ma amaat loolu fa bara rek fa lay mujjee moom rey ko ñu ñu ko ci bàmmeelam rek yàlla ñàkk yaay nañ bind doomu aadama tawru yi doomu aadama jaar maniyu lumb suuf yàq yàpp gannaaw ba ñu dawal ci moom raw muy naan mbindeef balaa gis balaa ji wax ebaat ji foofu ñaar ci saawee ci taxa nag ci taxaat yi Omar daf ne fa tabarakallah ahsanul xaaliqiin Abdullah ibn Abi Sarr moo doon bind wayi ji mu ne fa tabarakallah ahsanul xaaliqiin yonent na ko bindoon loolu noonu la ko wayi ji wàccee Omar moom daf doon fuutale loolu ne dañu naan wayi ji Abdullah ibn Abi Sarr moom dem murte ne wayi ji ñu jublu mooy ñu sopp ci sama wax bu yàlla mooy taxal bu ko neex mooy taxaani bu ko neex Omar daf daa tiitaroo ne daje naa sama borom ci yeneen fiir noonu naa yonent yi dal te jigéen ñi laay ci daaya wàcc dëggal ma waxoon naa ko ne jar jar yi ngeen bagar nañ yan rey te buñ dëgg ñoom am jot yonent dëgg ñoom am jot laay ñu ñëw dëggal ma daje naa sama borom ci maqaamu Ibrahima noonu naa sama borom maqaamu Ibrahima noonu naa yonent maqaamu Ibrahima fii dañ ko war a def mu di julee saay laay yow wàcc nañ defee maqaamu Ibrahima mu di julee saay daje naa moom ci yéen bind doomu aadama ne fa tabarakallah ahsanul xaaliqiin laa di wàcc dañ koy mën de Omar moom daf ko doon sant yàlla di ko tiitaroo Abdoulaye ibn Abi Sarr moom moom mu taxaaree ko moom mu tëdd may na ko mu topp na ko yéen ba mu caa am ci seen kër yàlla suba tool dama nekk ak yàlla ñu ñaan raxee ba yóbbu leen ci bàmmeel gannaaw bay dam doyam boobu de daa yéen dakkal waxaw leen ci denc yàlla ngir misaal ak fay de dàqante wutal mbugalam bàmmeel tudd ko ci laaj bi jaarale na ci biir ci waaye dañ nekk ñu doon suñu nee soo leen mën a daan yéen a ci seen bàmmeel de mooy ñu buñ ko suuree balaa na koy dégg tànk ñu ko dundee woon yaari malaaka daañu ko fekk ci bàmmeelam yoo xam ne seen bët yaa nga mel ni jant buy tànk wala jant buy sotti xonk gis nañu ñëpp ba dinañ di ñëw ba xam ne doomi aadama yëpp dañ ko jox lu muy bëri la ñu jóg loola doog loola fekk yonent tamit teew. ñu naan la waxoon ci waa Jule su fekkee ku gëm yàlla la yàlla saxal aw laayam mu ne ñu naan yàlla la ci tey andi nañu diine lislaam gëm nañu la topp nañu ko ñu ne ngelawal xamoon nañu ne loolu ngay wax su dee yéefar wala naa fekk nag mu ne xaw ma ci dara déggoon naa ni ñu wax la rek ma wax ko fàtte naa ñu ne xamuloo jàngaloo wala day dal kooku mooy mbugalam bàmmeel gannaaw ba nag. daal di dëkkal ñëpp ñu doon ci benn pàcc ñu doon jaamu ak kañ doon jaamu yëpp jàkkaarloo yonent ma ne ku ne ci yéen doon taxaw fa kanam yàlla ci daal di dox leen diggante bu waxante moom antal pare di dox ci diggante ba ñu di ko ni saaf lépp lu ko yàlla masa wërsëgal nam ko amu ak fu mu ko soxanikoo ak lu mu koy jëf gannaaw bu mu ko jëriñooyee lépp lépp lu ko yàlla masa digal ak lépp lu ko yàlla masa tere rek yàlla ni bind doomu aadama bind bu mag boobu di ko dundal dara ko kooku ci fekk ni yéesam la bokk rek mu indi ci meneen malade wala xam xalaat naa bind nañu faqakum ca kaw seen dafa xalaat ko juróom yaari asamaan ñu loolu itam yàlla ni bind asamaan juróom yaar ñu tegu ci seen kaw mooy dinañ ko xalaat di mbiri ay yoon ndax mala asamaan yoon malaaka yi lañ commencé ko naata nekkunu xaafi ñu naan way sagal amin xaafi wala ji déedéet ja suufam te yàlla sàmm ga muy sàmm asamaan dem bañ a daanu ñu seen kaw wax laa ñu ko ba tax mu fàtte ñu ci suuf rek ñu ngi téye asamaan te daanu ci seen kaw ma nga téye asamaan ci boppam itam ba mu bañ a daanu de te ci juróomi yaar lañ asamaan juróomi yaar lañ su ci nekk yaay am ndoxam juróom téeméeri yaar la ci asamaan am na kaw suufam am na géej bi nga xam ne moo ne Madina moyen suuf si pare ko pare ko suuf pare ko lay joxe ca moyen seen ko xarfu géej googu moom amul dayo jaww ji nga xam ne moo ci géej googu nga xam ne man dëgg naa asamaan ak suuf moom la ñuy di yow a seeti léegi xam-xam yi dafa yàgg na ci ñu am ay waruwaay yu ñu am ay jaww nga xam ne géej naa leen ñu ne ñu ngi koy jéem a aw nag ba am ca weeroo loolu nag moo di moo di jàppale. wa am solo naa doon wasal ñu sama ci jaasama am naa nag taw dafa dem ci mbaa ñu fay yàlla di di asamaan di suuf di leen yéen dama adama nga nekk ci diggante yi digal naa taw bi muy taw seen càmbaxaale ak mu nekk dana taw taw lu tolloo lu tolloo fa fay dama adama yi rek parce que naa ko dëkk doo ko moom ndoxam taw ma di la ci suuf bu tawee itam dëkk dëkk am na ci loo xam ne day waaw dugg ci suuf dem dëkk ci biir suuf bu ñu gasee nga toll nii ci man di naan wala ñaata naka ñun ndax xaar bi dana yaatu nañu ala saa yi ci benn bi de ndox moomu de te ndox moomu ma leen may taw boobu taw yàlla dina nga leen ci tool yi Fadama ak tool yi Henaf ak tool yi Poté yi ñu ñu di jeex dana faral di tudd Fadama ak Henaf ndax lépp bi koy teew yaaram loolu la woon te yaaram la ñu waxal lakum yàlla leen jaay moom faral di koy teew te si la ñu doon bëri comme yàlla ci moom Fadama la ñu waxee Fadama yooyu ak Henaf yooyu am ngeen ci projet yu bëri yoo xam ne yéen a koy lekk yéen doomu aadama yi rek muy waxtu say bu muy waxtu si kaar noonu rek nawet jamono bi nga am na nañ tàndarma yooyu ak xanam yooyu am ngeen ci projet yu bëri yoo xam ne yéen a koy lekk yéen doomu aadama yi rek muy waxtu say bu muy waxtu si kaar noonu rek nawet jamono bi nga am na nañ ngeen boo xam ne sooy dagoo rek ngeen di ko lekk di def loolu xam nga ne tànn dëgg na sama mata jàng rek te jara doon soos nañ garab ndax ñu ko gërëm génn ñu doon ci naa ñu ko gëj a doon ci naa yàlla dina na yoon garab ak day tool yoo xam ne ma ngay wax ci toolu ci naa yàlla na ko ci ndaxale cosaanoo ko la dana doon rafet sambatu dana ma fax di duuru ci ak diw di duuru ci ak diw day tool garab ak day tool moom mooy nañu di ñu xalaat li nga xam ne ak jiw la boo xam ne moom ngeen di jiwee ñam ngeen di lekk rek dina ko jiw ndax ak sos ca rënd ba waaw xëy na ni xëy na ni ak jiw ci moom rek te saytu faa ko def moo ci def loolu ngeen woon ngeen jàng ko wa inna lakum naka ñu naka ñaan leen fi lana am ci jiw tamit la rafetal xalam nga xam ne wut foofu de ba mu leen bindee rek bind ak doomu aadama rek dara naa xam yàlla bind bind bind asamaan ak suuf di wàcc taw bi nga xam ne tey ak mu nekk mooy saxal li doomu aadama yi di dundee loolu rek dara naa xame yàlla dara naa sant yàlla dara naa jaamoo yàlla waaye yàlla yewut ko bind na leen ay jullit ay jëlee ba ci nag ak jëlee ci xaral laata ngeen xalam ci boobu itam ndax tey comme dana ma màndal leen dinaa fi gisoon yaa ci kër yi gis leen am soo def jur yooyu moom rek a mën a leen nandal am soo def ñu juree wala tey nga am soo soowam béy soowam nag soowam gëlëm ak soowam xar yëpp man yàlla maa leen ko nandal wala comme ñaan leen caa ci judd maanaam sama njëriñ kese rek ñu ngi bëri te du xamul boobu de njëriñ ak judd du soow ma rek de suuf maa nga fa mooy béy nga xam ne ci la ñuy defaree mbaj yeeg jalaareeg manto leen yi ak wabarwa ak kawar ci boppam de moom laa ci ñoom sàkk na ngeen di lekk ay jamono nag ngeen faa ngeen faa ngeen defar ren de lekk yàpp rek yàlla duñ doon di jot ngeen lekk yàpp ngeen di naan soow ngeen di jëlee soow ngeen di rabee ngeen di rabee waxtu ma dafa yeex na waral leen xale yaa ci di jëlee ay jamono ay jamono boo bëggee tukki ngay war ci bàyyi ngay jëleem wala nag waaw ci ci jëlee waxtu ma dafa waral leen yenn jamono yi nag boo xamee ne géej gaar na foofa moom jiri gëri mënu leen fa jàllale ma bind leen saxaar yi nga xam ne moom ngeen di jàll ci géej moom yooyu yëpp ci leen ko defal mën ngeen a xam ne kenn la te wéet na te mooy yoon ngeen jaam ko saaru maka saxal tawhid rek mooy soxlaam xamal jaamu yàlla bañ xam yàlla ñi nga xam ne moom lañu war a gëm moom lañu war a jaamu soo xamee ne saxal na loolu nag fokk mu nekk ñetti say yonent yi jëkkee ñett li moom liñ ci jublu mooy yonent yëpp dañ leen a yónni ci seen nit seen nit weddi leen bañ leen weddee itam ñoom ñëpp yàlla alak na leen li ñuy jaaral ba ñu ci tey ñu itam ñu itam su ngeen gëmee seen ak yonent baax na su ngeen ko gëmut na ma alak yoon ñu jëkk ñe noonu laa leen di alak de wala xalaat ba naa noonu lay yónni noonu noonu noonu laa xaw ñu jëm ci itam ña ba xalaat ba waa yaa xaw mu leen sama boobu laa leen leen yàlla jaamu de maalakum ngeen ñaanal ñu daa leen buur xayroo kurut moom yoon si yàlla noonu la yàlla jëkk yoon ni mu heen sariyaatu ba mu ñëwee dina wax ni ba mu ñëwee ne leen ne leen yàlla jaamu amu leen jëm yàlla ngeen war a jaamu kurut moom de yoon si guddi ci loolu lay wax kenn waxta kenn la dem moo tax ci yàlla kenn la dina def maalakum ngeen ñaanal ñu daa leen buur xayroo kurut moom abal sax kon dara ngeen ragal yàlla te dara ngeen ragal yàlla ragal yàlla mooy topp ñu ngi yàlla bàyyi keroog waaw ragal lépp loo xam ne xaraamal na ko ragal bàyyi lépp loo xam ne waral na ko bu def loolu yaay ku ragal yàlla ragal def li nga xam ne xaraamal na ko ragal bàyyi li nga xam ne waral na ko. wa qaala ko almarahu wa ittabi'a alladhina ñaane kafaru rek ñu ne xaw ma doon itam maa saa ci ñu ne illaa fasal dara doomu aadama la lépp ku ñu jam seen ñu ñu namu namu an yatafaddala ñu gën gën lu te an yatafaddala mu tegal alaykum ci seen kaw de ñu ne waaye moo woon dara lu ma doomu aadama naka yéen rek dafa bëgg rek nekk di ku ñu topp yéen ngeen di way toppe seet leen wala dara laa ba dafa woon yàlla bu jaamu hut bi moom la am sooy kon tey mooy ma lay ma lay ma lay yàlla bëgg ñu gëm ba naa yéen ma ata waaye doomu aadama naka ñun ci gaaw ñu lay laangoo moo tax ku ci bañ a jariñ ci yonent yi loolu la tee ku bañ a jariñ ci wàll yi loolu la tee ak doomu aadama Iblis a ko jëkk a wax ba ko yàlla ne ci jootalal aadama mu ne doom mu ne aadama mi nga xam ne doomu aadama rek la maa ko gën duma ko fi jootal lent mu Iblis waxewoon ca dañu aadama mooy daw ba fi di sax tey jile li sama tam la rek duma ko topp na yàlla wàcce malaaka waaye bu muy doomu aadama ñoom kat defaloon nañ doj yi pour doj yi mën a nekk yàlla doomu aadama fi gën a mat ci yàlla bind na te yow sax nekk yonent ak yàlla maa xam naa mosuma dégg ci aadama ci biir xoolee yaa bàyyi naan ci mbaa ñoom la way yonent yàlla moom mooy jaay dina yonent yi moo tax ñu dañuy wax ñu moom ñu wax dañuy ñu ko dégg mukk kon nag mënuñ ko gëm ñu ko dégg ilaa rajulin dara waaye la ñu ne dina tëral ci moomu dina tëral ci moomu waaye moomu dina ko jàpp ñu muy wax yëpp parce que dafa soog ngeen ko leen di ñoom ataay ñu nga wax suuf di am ñu ko mu ngeen doon jaay xaaral wax moomu ne rabbi yow borom sama pour pour ñu yàlla nga dimbale ci seen kaw dinaa ko dëggoo ci yàlla sëriñ ci man yàlla nag mooy dimbale xaaral ne ne ndax rek nañ ma de danaa jine ak waaw waaye naa ko nu way ñu doon ci moom am na tam dem ñu naa jëfal alfurqa daal gaa yi naa ci wattu fu rek yàlla wayu ko ne ko danaa danaa indi ndox moo xam ne fay labal mboolem nit ñëpp yow ma xeexal gaal te gaal boobu laa doon musale yaa ndëgëm mu ne naka laay xeexal gaal te musuma jàng bu farfal ci mu ne ko man maa lay wattu waaye naan ndëgëm de maa lay digal dem na nga xeexal gaal la yéen ci yàlla noonu jëmbat ay xànq toole xànqam te xànq ya mag ba nga xam ne mat naa jot naa xeex mu góor nag di xeexal gaal la ba mu xeex lu mu xeex rek bu guddee itam ñu ñëw yàq ko tojal tojal tojal ko ba mu fexe moo tax yeneen jaar na woon moo njëkk a yar xaj mu yar xaj nag ba xam ne moo leen di wax suuf bi ñu di dina xaj ba bari leen ba mu koy yar daal nga itam seen i yàlla xamal bu xajee rek seen i yóbbaal fa mu war a ba la war a dagg seen i war a dagg balaa war a def mu defal ko fa ñu ne ñu rek jigéen la ñëw di ko sax naa ko defal nii defal nii lu mën a am daal mu daal gaalam da taxawal de bu ñu ñëwee ñëwee nañ la ci réew reetaan ko mais que wala ñooñu yaa ngi ku leen xoote ne yonent yàlla la ba gën ñu topp leen di mujjee woon na mooy mujjee woon na mooy di farfal reetaan gaal mu ne su leen maree des na ñëw ma ni maree leen de isa gaa leen di gën a amru noon bi dama rek noonu ñoom ba parate fuur te nooru fuur ba faslub afeel yaa te gaal dafa kii fa ngeen ci jëf jaar xeex gis nañu yaa yàlla ne ko bés boo xamee ne gis dina na nar a xaaral sa nit ñi danaa ko sàkkal mandarga kuur bi ngay lakkee mburu gis boo xëyee sàkk ko muy kuur ndox rek ndox ma di ca waame rek saa yoo xam ne jalaw laa yàlla sa nit ñi def ma nga jëkkoo fa te noor ba ba tey noonu maa ngay góor ah yéen a yàlla noonu ma nga xam ne xëy na bés ñëw ca tuur ba fekk mu ngi tuur ndox mu daal di demali gaal ga de daal di dugg ca gaal ga nag yàlla fangal ko ñun ñëpp bu tàllalee loxo ndey yoram door dugg ci mu tàllal loxo càmmoñam jigéen dugg ci mu dugal te xam ne ñun di def ci àddina yëpp yonent yàlla noonu moo le moo dugal ay yoon seen aw seen jiwu ca gaalam ga de waaw daal ñeent sa dugalal sa jabar ak say doom ila man sabaqa naka te gis naa ne dinaa xawle baatam bëggal ba mu ñoom de lu ma ñëwee xam ne yéefar la ñoon amoon na jabar bi tuddoo waaye la ta moom yéefar la kooku bokk na ci ña lab ak doom bi gis naa ko kanaan moom itam dafa rajoon waaw moom bokk na ci ña lab de waaye ñetti doomam ñi nga xam nag ñoo ñoo ko gëmoon topp ko mooy saam ay xaam ay yaatu ñooñu ñoo fi def ak seen jabar ñu ne mboolem ñu moom dugal ci gaal ga juróom ñett fukk lañu ñeent fukki góor ak ñeent fukki jigéen bi nga gën a bëri ñu ne déedéet mboole seen juróom benn góor lañu ak juróom benn jigéen ñu ne loolu loolu waaye lu mën a am rek loolu mooy jiwu doomu aadama yi moo tax le ba gannaaw yonent yàlla noowoon képp kuy doomu aadama rek ba xakkam jaar na ci yonent yàlla noowoon moo tax moo tax ñu di ko wax aadama saani mooy aadama ñaareel gi rek gannaaw ba nga xamee ne ba tuufaan lay na ba ñu ñaara ko ñu gëmoon yonent yàlla noowoon yàlla defal njëkk ci kan ci ñoom njëkk la mu ngi jóge rek ñetti doom yonent yàlla nooy ni ñetti doom yi ñoo jóg ñu dee ñu nekk ba léegi saam ak xaam ak yaatu saam moo jub arab yi ak room ak faris xaam moo jub sudaan yi ak barbara ak kipte yaatu ñoo jub ba xaalibatu ak yaay jooja maa jooja ak turk ñu dee ne ñëpp ñu yaasal ci noonu yàlla bàyyi leen jur ñu laay bi nga xam ne am na ci lañu doom nag ñii ñuul ñii weex loolu ca xëy na yàlla rek la nit nga xam ne bind na ci garab yi yoo xam ne seen meññet dafa weex ñu toon ñu xonq ñu wert bàyyi na ñu mu bind ci ñu weex ñu ñuul lii xonq doj yi mu bind ci lii weex ñu ñuul lii xonq doomu aadama yi noonu la bind ci ñoom lii ñoom lii weex lii xonq yahud itam ne yàlla wax na ci tawreet ne nit ñi ñi seen maam xam noonu daf doon nelaw sàgganu xawraam bu di ko reeraan mu rëbb ko moo tax doomam yi ñuul dañuy sant loolu amul su fekkoon ni loolu xam na ne looloo tax ñu ñuul ñu ko wax ba léegi wax ji wane ne tawreet mënu ko wax tawreet ci ñuul salawaat Musaa ci bani Israayil bokk te ñoom booba dañuy ñuul booba dañoo weex tànn te booba Firawna leen defi jaam te Firawna moom dafa ñuul kukk te ñoom ñu ñu ñuule ñu ñu ñuul ñooy jaamal bani Israayil ci ñu weex ñi boobu Musaa ñëw Tawreet indi diine yàlla ñu ne jéggi moo leen yëkkati gannaaw ba ñu ñu ko bëri ñu yëkkati yaaram Faris leen mas di jaamal ak xabaj te ñoom ñu ñuul leen ba yonent yàlla moom man ñëwal alquran ak diine islam diine islam yëkkati leen ñu soog a nekk kàddu yëkkati ko de kon nag ñuulaay ak weexaay amul benn saxan ko lépp yàlla bind lëf bind safaan ba ni mu bindee asamaan bind suuf rek noonu la defee lu ñuul def lu weex te docteur yëpp amul bii docteur ak baa boo bindee dara ci ku ñuul bii dara ci ku weex amul benn xam-xam boo xam ne docteur yi mën nañ caa dem ba xam ne dara ci ku ñuul rek ku weex yàqu ku ñuul rek ku weex kenn mënu koo xam ne wuute bi ci kaw rek la yem li yahud wax daal ne ñuulaay ñu ñu ñu bàyyi ko jër bam noonu foofu ay nar la léeg-léeg ñuulaay ñu bàyyi ko ci kàttan yàlla rek yàlla ñuulal bu ko neex weexal bu ko neex jaww yi ak ñam yi itam ak dëkkuwaay yi foofu itam luñ luñ jeexital la ci ci nit ki ama li nga xam ne ñu jëkk daa nañ ko wax mu diw nar léegi ñëpp jël nañ ci mais dafa am xeet bi yëkkati bu ak xeet bu suufe kooku moom du dëgg natt sandara loolu su fekkee ne dafa am ngeneen loo xam ne ñu def koy jëlee ci xeetam balaa ngeneen loolaa mën a fatti nga xam ne boobu nit ku nekk ab jigéenam ba mbokk ndaw bàyyi sëyet yi ñu jur doom waaye yow boo bëggee ci xeet bi yëkkati ku masalan nga sëyet beneen xeet jur doom doom bi naka lay mën a jëy am yëkkati bi ci benn borom su fekkee ni noonu rek la loolu ay xarafaan la yoo xam ne ñu def ñu daan ko ci téeméeri at ñëpp ñu ngi nekk nañ ñëpp daje nañ ci ne loolu nar la ngeen ñu jigéen ci dara wala ci xalaat kooku amul wala tuxaati ñu bu waxee wala dina dina sala mo toll nañ la yàlla nga koy ci lu xaat nga ko mu yàgg yàgg nag bul ma waxee mukk ci koo xam ne yéefar la xam nga doom ma nga fa sa lax jigéen jotee ñu jigéen la gën a rëy ñoom naka ñoom mu wax wala ñu labal lañ rek am naa yéefaru ñoom amul ji rek baara ñoom ñett ñoo xala lax de xataa yéefar bi nga gis yow yonent bi nga saway dem dem xemoo nga anta yow aman maa kaa ñaan la yow waxal pour bi ca gaal ga waxul waxal alhamdu xaaj jant yonent di jaay ak nekk la ñaan yàlla la ci yàlla mi nga xam ne nag ganaa musal na munu ñaa xawmi jëni ña asaani ña ña yow weddi rek boo xemoo ca gaal ga nag santal yàlla mi nga xam ne arab na yéefar ya te musal na yow yàlla ñi nga xam ne gëm nañu ànd ak yow waxul waxal rabbi yow borom sama am ci ñu yàlla nga wàcc ma mun sama wàcc waaye mu baara ngay ñu wàcc wante yow tam mun ci ñu ay gën a wàcc ina fi saali gën a daa gina kala ci loolu ñu ci doon ci ñu dem noonu nag gaalam nga ak xala bu jëfale daa yaa di tëkk ñu tëkk la kattan bu rek way ku naa naka nekk noonu la mu ci ñaati way natu rek boo boo déggee xisa ci noonu da nga xam ne loolu ci pare sama la tawé da mo ya jaamu rek da nga xam ne yàlla yàgg na nattu ab jaamam rek da nattu na ñaan yàlla noonu yéen ko jëñ dem ñu la di ko du ko la ci ci neex yàlla sax dina arab rek yéen ci yàlla noonu am na ca gaal ga juróom benn weer ci rajab lay koor la duggoon ca gaal ga gaal gay daw ak moom rajab saabaan ramadaan sawaal boobu kat a gisoon aljati ci muharram ci des a tam xarak nag la gaal ga teer ca jóobi ca mawsal ca araat te yéen ci yàlla noonu di hadiyat yi nag mbaam ba muy dugg ci la iblis tafandoo gëdd gaale muy dem ca gaal ga mbaam dafa taxaw loolu na ko dugal mu ne ñu gëcc dugal ñaari tànk yi waaw noonu na ko dugal iblis jaxal ca genn ba mu def ni waaw bëgg dugal iblis jaxal ca genn ba ba yonent yàlla noonu yàttanti ko ne ko dugal yow bu ñu rëbb ki mu dugg iblis daal di dugg rek noonu ne iblis la dugal ci sama gaal gi mu ne ko yaa ne dugal yow bu ñu rëbb ki sama rek lañ rëbb yaa wax dugal am saxee ca gaal ga nag juróom dañu weer yàlla wayu doj bi ne danaa teeral gaal yonent yàlla noonu ci gannaaw yàlla daj ci daj bi daj yëpp daal di di jëma asamaan ko ñëwee loolu day man rek maa koy xelal jëbal uut di gën a rëy jëbal uut rafa ak yokku bay bi sabbi jaminan doori dinaa ja nasra doori ja mawtal nag moom tabax na yàlla ne man de xam naa loolu man xelal ma moom ma tabax loolu moom la ko yàlla xelal moo tax ko tabax na yàlla yàlla yëkkati la ku yëkkati sa bopp yàlla suufee la daal nga teer nag ca doori gannaaw boo xamee ne noonu yàkkamti na yónni baaxaay ne ko demal seetal ma ndax ndox maa ngi nii itam de baaxaay génn rek gis medd mu sax ca medd moom di sax ko di sax ne yonent bi daf ko yónni woon ba mu yàkkamti ba yónni katax ba mu yónnee katax nag katax moo dem day gis koo xam ne ndox mi wàcc na ba xobu garab yaa ngi feeñ mu dagg xobu garab indiwal ko yonent yàlla noonu xam ne ndox maa ngi sax ba garab garab yaa ngi tàmbalee feeñ gannaaw da mu yónnee at ba mu dem gis soo xam ne ndox mi waaw suuf na ba nga xam ne tey suuf si sañ na mu taxal baaraam mu taxal moom baaraam yi waaw ci suuf si ñëwante yoonu jara noonu noonu xam ne am na foo xam ne ndox mi sar na ba suuf si tey moo tax bu rëbb baaxaay ne ko yàlla boo am ko dara looloo dee moo tax baaxaay doo am ko dara mukk te tax mu taxal ko taxam boobu ci baat bi ñaar ba yàlla ne ko yàlla nga am ko dara gis nga te tax mën naa ñëw fii di nga wax de bëgg a dugg ci ndaje yi te du te doo am dara lu muy ragal ndax ko rëdd ko noonu ñaanaloon de picc yëpp moo ñu gën a ruut waaye kenn du dégg dara nga ruut nañ tool ba yeneen picc yi lañ koy wax sant moom mu la jox. maanaam saa naa topp na foofu ñun daal ñu ngi gannaaw seen xarnoon ay aw nit aaxari nañ yeneen de gannaaw ba yàlla foofu nit ñi nañ yàlla xóot mooy naat ñu waaw xam naa dañu yónni ñu ngi ci ñoom rafetlu ñu yónni ñu ngi ci ñoom de mooy yeneen yàlla wóor de gannaaw bi nga yonent bu ñu xalaat sa wuñ la sa ndig jeex na moo tax ba yonent yàlla Muhammad ci nag moom bu ñu xalaat am itam ndax bu ñu xalaat sa wuñ la sa ndig jeex na gannaaw ba nag yàlla yónni yonent yàlla xool jaxaat na am na tam di leen dig bu guddi laa wese leen yàlla jaamu maa la ko ngeen ñëw leen ñu daañu ko tàlloo suñu moom après am sax ko seen ñama la yàlla de wa qala dawa al mala wa ta ñu awu ñu dem ñaa ala seen ñaa ko fa la ñu ko fa ko ñu na do ñu yàlla di xala har di dajala akra waaw tax naa am tax teewal leen si ayaat bi ñu ngi laaj ñu ne ñu ne maa aza yéen xóot ñu ne ilaa basarun la doomu aadama la ñu sukk bi kam sen yaa ko gën a mu lekk maa kaa doon da ngeen lekk ba sukk ci moom wala itam dama naan maa ko bon da ngeen naan ko wala ina xaatum wallahi ngeen topp ngeen basarun doomu aadama gis na sukk bi kam sen ina kum naka yéen itam ba koy waxaat na way topp ngeen de ngeen topp sen mu gañ leen de ñu nekk kuñ topp ngeen ngeen nekk di way topp ala hadukum gën a mu doon leen am na kum naka yéen ida mistum jam jaa ngeen wala kuntum da ngeen nekk turaaba ñu suuf waaye saa man tëdd yaa am na kum naka yéen mu xëy yoon ñu jënd leen waxu mu naa gannaaw bi dee ci dana def ko gannaaw bu ñu dee da nekk yaa am su ndox ana ku ñu mën a dekkal kenn mënu dóoru ayaata sori na ayaata sori na maa mi naa sama borom la gën a doon leen ko de dekk ñu ngi ànd ñu ngi dee moom dekk ji oo di wax ilaa ayaat noonu rek ñu sunu dunya jaadu na rek dekk du dara mooy dund bi ñu jaadu na na muutu dana mu dee wala ayaata dund ay doom sunu rek lépp mooy boo dee rek sa doom taxaw sa taxawaay na ñu jàng jàng dund waaye ku dee ba natt ñu ci dekkal ko kooku mënul nekk waaye maanaam seen mën gi ma wax ñu ñu dekkal ñu wax leen moom yonent bi de di ci def dekk laa la jëm ndax waaye la bu ci saraafa bu mu ala yàlla yàlla taxi bañ naa de maanaam seen mën moom ñu ñu ko delloo ci moom de dafa soxla yàlla rek waaye yàlla waxul loolu xaaral mooy rabbi yow borom sama kon pour ñu yàlla nga dimbale ma di ma kese boo ni ci rajo seen man de xaaral wax yàlla ne ko xam nga xam ni ci jamono bi néew day si woon na dana mujj naa dina di wéy ci rek yàlla ne ko ñu nga tuuti rek daañu koy ci ñoom ñëpp rek ñu nga doon dee waaw xam nga te jàpp leen pexe xaalis bi ñu dëgg laa ko ci dëgg di ñu xaalis leen rek ñoom ñëpp ñu dee yàlla na am tamit dëgg ku saa ñu tam bopp waaw yàlla di ñu xaalis leen ñu ne ñu bopp bu pàcc rek ñenn ñu dund daal bopp bu tamit kon yërmande ñu xam wàllu bi ñu xaal ñu di way tooñ de souvent danaa topp na foofu ñu daal di gannaaw seen kuréelam aw nit àqar na ñeneen maa ko fekk ji ji ñu ma ci xel ajala di teel de ba ma ay saafara mu ngi ci bëre souvent danaa topp ñu wënni rusulana ay yeneen suñu toppam di ñu way topp loole di nga ne yéen yéen di ne waaw bu ñu ñaan yéen su ba mu yére da jaw na topp nga mu ñu ñu beneen waaw kullama jaa dëkk bu dikkalee ummatan xeet rasulu ha yonent seen kasa boobu ñu weddi ko yonent bu ñëw waare rek aw xeetam weddi ko waaw daanaka tam taxal baaxul ñoom seen baaxul ñoom de yàlla it ñu wedd rek mu xaral leen waaw wajal naa am te mu jël leen aar ñu ñuy waxtaan de ba bootam seen yërmande nga xam ni war na ci ñu daayam leen ñu dem ci ñu de ñoom ñëpp ci ci wedd seen yonent rek yàlla aar na leen loolu nag ñu ko gaa xure sa dégg ñu yedd seen yonent yi tam xaral leen de maa xam naa topp ñu ne Musa Musa waaw xaaral mbokk am Haaruna Haaruna yaa naa ci kàddu si ñu juróom-ñeent de kon ci sànni ak Ndao mu ngi mu ngi aju gudde ilaa Firawna mu dem ca Firawna ma lay yéen mbooloo ma parce que baroo dañu leen wala jëm waxtaanoo dañu nekk xaw ma ñu ne xaaral ñu ne way not de te not nañu bani Israël waxtaanoo dañu wax ñoom surtout am noonu ñu ngi dëgg dëgg ñu defee ñu ñaari doomu aadama ñu di naa ñu di tamtulu ba xaw mu maa tawul seen aadu gën way jaamu lañu naa ñaanu mu naka ñu dañu tafe Musa mu jiwu ñaan te xam ne bii dem bi ñu jaam rek lañ parce que boobu maa ngi leen di moom Moussa laa doon parce que am na te ñett ñoom mu nekk nii ñu ñaar ñu def wala xalaat yi naan jamono Moussa Moussa ci kaw Tawreet daal moom ba ñoom lépp ñoom ñu jub yàlla wàcce na Tawreet ci Moussa ndax mu jubal ban Israël wa jaana tan def ibna Maryama doon Maryama gannaaw ga wa umaro ndeyam ayatan muy kaafir de yàlla def na Insa ak ndeyam ñu ngi jënd kaafir waxut ayata yi ndax ñoom ñaar ñëpp jënd kaafir lañ mooy juddu bi Insa juddu bi ñu bàyyi waaw waaye naaw maa kan tàq leen ilaa rubat ñu jël ci cundee ñu tàq leen ci cundee mooy baytu maqdis comme yaroo wala diis wala Palestine instant ñu juddoo ci naafara te dëkk ca Misra gannaaw ga nag waaw ma nga yaroo ca baytu maqdis de ca India saa ci xaraa yi dudu baram saxawaay ba maa ngi waa akam mbal de yàlla tàq na ko ci dëkk boo xam ne aw tund la woo xam ne saxawaay la tax na ndox mi daw te dañu baytool wala ñett ca jëndal jàkka ji ca béykat yi masjid al-Aqsa jàkka ji ca béykat yi ma xam ne béykat yi dañu war a Insa ci kawam la yar de ñett ca jëndal ji Insa la tey mooy béykat yi tóor Insa Musa la doon waxee yàlla ak bële dina animé ci Makka moo tax nekk na la ci kaw rek yoo xam ne jaa Allah yàlla dikk na dina tóor bàyyi ko ca tóor dina di la saytuuna su ma tawajjaha Faaraan ne yàlla ñëw na jóge ci tool dina jaar ci saytuun danaa ba mu jublu ci Faaraan mooy Makka yàq na laahu foofu ci kaw rek xam nga yàlla yàgg ci jublu Muusaa ca Tóor Insa ca saytuun waaw Muhammad ca Faaraan mooy laay jëy itam wa tuuri wa tiini wa saytuuni wa tuuri tiini na waa lan dara la ni yaa ayyuha rusulu yàlla ngi wax ne yéen yonent yi loolu lekk leen nekk yi daal di alaal waxamal ma jox leen saa yàlla farataag naa fee yonent yi yàlla digal mooy nañ lekk alaal dañuy def farata ak naafila li nga xamaan ak li nga am la ma li ma xamal la dañuy jëf ko de sama yàlla xam naa li ngeen def yëpp dinaa leen doxee yàlla taral na kat yonent li mu wax yonent yi loolu la wax kat yonent ñu ne leen kuréel ñu tey baati am wala saaliyaan ñun ñu tam ñu yaa yaa dafa amoon loolu ñu tey baati maa xanaa ko wëstu wala laay lekk leen lu tey te jaamu yàlla lekk leen lu tey te sant yàlla rek waa naa ñu naka jëlee diine ci diine lislaam ni ummatukum mooy diine seen maka ñu diine diine waaye dafa ñu diine yéen lislaam diine mooy seen diine ñëpp nekk leen waaye man nag rabbukum maay borom seen ko sakkoon ragal leen ma de ko sakkoon sañ dogante amoon di seen rayoon di gante seen su borom ndig ndig kuréy kuréy ñoom nag ñu ko faaroo def ay kuréy kuréy yu wute yow nekk kuréy yu bari na faaraa nekk kuréy yu bari yonent na ne istarakat yahudu ala waa ihdaa sabiina firqatan fi al-nar yow safan ci kaw nañ juróom ñaar fukki kuréel ak benn yëpp safara lañ jëm waxtarakat nasaara ala sabiina firqatan fi al-nar nasaara safan ci kaw nañ ci juróom ñaar fukki kuréel ak ñaar yëpp safara wa satastariqu ummati ala salaatin wa sabiina firqatan fi al-nar illaa waahida maanaa lay waasaal yi sama xeeti daañu safan ci kaw juróom ñaar fukki kuréel ak ñett yoo xam ne juróom ñaar fukki ak ñaar yëpp safara lañ jëm benn ci jamaal janna benn bi jamaal janna nag mooy benn bi jàpp ci dina ci yonent sallallahu alayhi wa sallam rek bu dul hit ñu def kuréel fari woon na way dëgg lañu mën a dëgg la nekk ñoom su dee bu nekk nag dañuy dëgg la nekk fa ñoom defe naa laa ñu nekk ci daal de ba borom bay leen ñu xam rek ñu ci biir seen attaay ñu la ci joxal gis seen de ay wax yu bon ndax dañuy jottu ana maanu ana maanu ni doom naka la dana mu jox leen ko ñu ci moom ñu maal ci laale mu maaral la ba bañ na doomu góor ñu faale ma dana mu gaaw doomu ñeneen jël xalaat ci ñu ndax dañoo defe naa la doomu góor yi ma leen jox rek aw ñu la ci ñoom bal day laaj borom xamuñu dara yàlla de xamuñu loolu ab dara ci ñoom de alal ak doom bi góor su fekkee ni da nga koo dimbali ko di sant yàlla loolu de xëy na yàlla la bu mat a sant yàlla waaye su fekkee ni da nga koy reyloo di ko beere di ko moye yàlla waaye kon ab dee la rek rek duñ la def ne naka ñaañu moom ñoom mos a xoolee waaye ragal la ñu ne xasee ci raf ñu ngi ragal borom kër bindee ni nga xam ne koo leen kat ñu ne ko jàpp ñu ragal dara benn wala dinaa ñaañu moom ñoom loolu ñu ne dañuy dem daal rab yi daal Alxuraan borom kër xam ñu ne xam ne lépp lu Alxuraan solo dëgg nañ ko. ñaar wala si naan ñaar ñoom ñoom yaa ngi sukkandiku bokkaale suñu barab bi ci borom seen am na dafa am dañuy jaamu yàlla dafa fàttal bokkaale ñett wala si naan ñaar yoo xam ne dinañu dikkee ma aataw dañu dikkee bokkuluum sa conseil lu wajj la suñu aji jàq la am na naka ñoom rajo wala jëm dañuy daal di jëm ci borom seen ak ña nga xam ne lépp luñ mën a def ci topp yàlla yi ma nga ànd ak dàqare ndax xamuñ yàlla dana xam nangam dee ay sa laaj na yonent bi ne ko kuy dikkee lam dikkee sa fekk xolam lu jàq kooku yàlla kat ndax mooy fii mooy yàlla sa fekk xolam lu jàq yonent ne déedéet mooy kuy topp yàlla te fekk xolam lu jàq yaa ngay joxe sa sax te yaa nga tiit xam nga yàlla dana ko nangam dee yaa ngay julli xamul yaa nga tiit xam nga yàlla julli yàlla dana ko nangam dee loolu la yàlla nam de waaye namut kuy mooy yàlla te fekk xolam la jàq laay ko ñëne gaay isa yoon dañu daaw ba xalaat jiw de comme ñoom faalu ko lay defal te dañu laa di jiw de ñooñu ñu gën ñooñu nga xam ne ñooñu jiitu jiw de faalu ko lay yàlla de xalaatu kan bu topp ci nag na kon bu kan daaw ba la ko kat noonu waaye yàlla te bu benn jàmm nag lu may jëm kat noonu te soo mënee taxaw julli taxaw julli soo mën da taxaw julli nga jëkk julli soo mënee xoor nga xoor soo mën da xoor nga leb wala léegi naa ñu nekk rek noonu kitaabu téere yan ko wax dina wax dinaa ko ci dëgg te maa ngi téere boo xam ne ku nekk waaw la nga def yàlla waaw la nga def yàlla dana ko wax ci kanam yàlla dëgg rek la wax ci téere boobu nag mooy lawul maaxoor wala woowu ñoom laa yoo xam ne dafa wàññi leen ñu wàññi kenn ay yoon ñu yokkal kenn ay ñaar yoon de parce que kuréel boobu xol seen ñoom jëfëri xam rek ni aji nekk ay liggéey rek dinaa xaaj bi daal Alxuraan wala ñu ne amal na ay jëf ñu doon saalika lu dumu doole de comme ñoom xam ne damay jëf dañu laa ci moom dañoo la jaar Alxuraan daan def ban yeneen ñaar yoo xam ne dañ koy def ak saa saa xaar naa ban jàpp mu traité ñu way teewu seen dinaa faa di jëm te jaaf yi rek da yàlla xaaral waaw seen sangee nag te jaaf yi ca ca xare batal daa am ci la gerte wu ñu am léegi dara nag danañu jàngoo de ñu jàngoo nag ñu ñëw ko nag bu ne laata jaroo bu leen jàngoo Aliou ma xëy dina fi mu nekkee laata jaroo dafa dimbali leen ñu naan ci ñun de parce que am na ko naa ayaati alquran sama su laa def jàng baale kum jéem a ko tum da nga nekk ci sama di jàng gannaaw xalaa xam tum ci testeen testeen seen lu kat yi leen ñu ñu waaw daana jàng bi alquran ñu ngeen mut mut bañ ko topp de daana ram ñu ngeen ñooy doom naan ci haram ja ñu ngeen ci haram nak ñu ngeen jàng yàlla xam defa xanaa nag moom la am waaw di ko xoj yoo xam wax yoo xam ne amul njëriñ la pour juróomi bi moom da ngeen ko xoj mooy wax wax nga amul njëriñ la dafa dem yàgg dara ndax te tam te ñu alxawla alxuraan mokk naa ñu yàgg yonent bi dañoo te tëndalu alxuraan bi am jaa am di dana leen maanaam yaa leen dikkal mu aar waay bàyyi kay am dañoo am xam-xam ñoom bu wéy ko ci yàlla boo xam ne dikkal doon seen bàyyi la wala ñu di way jëkk maanaam déedéet am na ñaari foo am xamuñu rasoolawu ñu naan seen loxo ñoom muñ ci la way fakkale ñu la way ci moom am dañoo am xamuñu rasoolawu ñu naan seen loxo ñoom muñ ci la way fakkale ñu la way ci moom am dañoo xamu ci yonent yàlla mama anaam ñoo gën a xam ñoo ko si doon lamin li jiitu way bi am dañu yàqoo na danañu wax ne ji yaa ji nekk la ñoom ji nekk naa jinne am dañu yonent bi jinne ko jàpp parce que jaa am dikkee na mu dem làq ci dëgg waaw loolu daal di mën a woon ci dëgg ñu làq ci dëgg déedéet moom kay indi na leen dëgg waaye ñu bëri ci ñoom bëgguñ dëgg wala tabaar dañ ko toppoon alxuraan awaaram ay bànneex seen su alxuraan toppoon seen bànneex dañuy bëgg am yàlla am bokkaale wala mu am doom ndax dafa yàq sama rajo ak man juróom yàlla wala si juróom yàlla su yàlla nangu woon bokkaale kon kon xam nañ ñaar mu dikk na bu yàgg rek bu yaar yàlla bu ci newoon ci mbindeef yi bon mbindeef yi yàq rek naka mu doyoon démb kon ci ginnaaw ñu nekk ci ñoom rek ndax ban yaar yàlla yi xaw ñu wute dañu wute xeex waaw ba suñu xeexee dem xeexal xeexam ñaari buur yaa dina rek moom la rabbal àddina fakka sa yaar yàlla rek ban tey affaire am dikk na leen ci ci daal Alxuraan leen foofu ñoom moo di doon way def lañu ak ci réew wala Alxuraan leen de am bay ko doon da la leen xarjal ab yoon am da wax na ci kenn dugg ci islam mooy ba la fay xaalis bu bari ba xaalis yoo xam ne bu fekkee loolu la yoon ak borom fa xaalis moo gën wërsëg bi la yàlla di jox moo gën fuuf waaw li lay laaj ñu ne oo moom xaaral si kanam waaye di gën waaye wërsëg ak ñeneen jaamu yàlla yow jaam bi te xam na yàlla moo am sa wërsëg sa wërsëg bu yàlla moo gën lépp loo mën a sukkandikoo na nga nekk la nekk loxo yàlla la dal ko sukkandikoo te la nekk ci sa loxo ba noppi. Habib El Hadj Amady toogoon naa jabaram jabar ja jabar ji ñaaw ji ko. ñu toog ba ñàkk amuñ dara jabar ji na ko daal dama liggéey dama liggéey ndax ñoom ñu dundee mu dem ba guddi àll ba mu fanaan mu ne lu faa julli boromam ba guddi jot mu ñëw mu ne ko liggéey nga mu ne waaw liggéey naa mu ne ko anam ñu la fay mu ne ko buur bu rëy laa doon liggéeyal lu fanaan ba laaj fay man laaj rek ba mu fay ma ko mu ne ko dellu laa mu fay mu dellu di jaamu boromam ba ngoon jot mu ñëw mu ne ko ana fay da mu ne ko yàlla ci waroon liggéeyal laa rus naa ko laal tey ba fay bàyyi ba mu laajal ba mu joxe ba mu fay mu ne ko dellu na mu dellu naka lay génn rek benn góor dugg ci kër ga sànni benn keesu li gi door law ko fab daal di tekki dem jënd ci ji marché daal di togg Habib Rajo muy jënd ci kër ga rek kata ñam ñu xëy ko bu waaru fu ñam ñu war a jóge mu ñëw na jabar ji ko jëlee li ngay togg mu ne ci doon liggéeyal ñëw na fi la gannaaw ba fay na la waaw jox ma jël wurus ci laa toggal yi Habib jooy na de waaw xaw ma ne moom borom la doon jaamu rek ne ko yàlla la doon liggéeyal yàlla ko indi wërsëg woowu tax ma doon wërsëg nekk ci loxol yàlla waaw moo gën fuuf la nga yaakaar ci loxol keneen de way nekk na yow dafa doon da nga xoo leen ila siraat yi jëm ci yoonu sax mu yaa jikko mooy jëm islam way nekk na ka ñaan yaa ñu ko yaa de da na ci bona way jàng la ñaan siraat wala yoonu jidde wala way na ko xana ñu ñu bëri ko ko waxal wàcc na ma ala ñu gënal dafa ñaan yàlla wa mata ne yàlla dafa ci ñoom juróom yaar yaa ci d'accord naka xaati sama mbokk yi yëpp fa waa Makka d'accord nag waa ba nga xam ne lekk nañu xaj ba nga xam ne lekk nañu rafet ba nga xam ne fam nañu sànke yëpp jaay ko jëndee ko lekk xale ba nga topp ja ñu rey seen sang yëpp sang ñu rey ca Badara ñu jigéen ba dara ñu ñu rey leen ak bosu yaan nag waa ca Makka ne ma ngay seet yoon wax ak moom ñëw ci yoon bi dina ko yow ñu ne yéen a yërmaane ko te xeet bi nga bokk daal yërmaane ji juhum përeel rey nga bàyyi ji jaasi ji rey doomi ji ko ci wóor ne wala rey naa am donte yërëm woon nañ leen ba kasaf naa kan ñu ma ñu la nekk ci ñoom ñu ngoroñ ci ab tri yàlla joo ko dañu ngóor yaa ma woon ñoom danañu dang dang yàlla ne su leen yërëm woon ba di njëkk ji dañu fi lu rek jëkkën daw ga yàlla wala xadaxaf naa am jàpp na leen ci asaab yëpp ba ba ma sakkaanoo ba toroxlu wuñu rek bàyyi yàlla kuy doole rek ne war naa toroxlu yàlla rek yàlla bii ñu ngi borom kër au moins dafa vraiment toroxlu ñu jëm yàlla rek Abdoulaye Ka Fatana Fatana ba la wuddi Aliou si ñoom daa doon wuddi daa saa yu wuddi borom bu baax ak li mu yaa ngi sax te yàlla wuddi bunta bugal ci ñoom mooy ci la xale Badara ci daa am ci la fekk ñoom boobu sa la way naa wala ñu fi moom wala jël ñu de wala moom àll bi moom nga xam ne am saa bi ñu mu lakk ñu ne leen sama ak déggloo yaa leen di def seen napp ñu ngeen di dégg wala saa yaa ak gis ah gis la wala bi dafa àqali de xam ne ren kenn ku ne yaa ngi ñëw maa ngi ko doon def sama boobu moom la si moom nga xam ne balaa ko bind na mu dem ci la ci tuuti way nga jëm moom ko faral def fa nga leen de boobu moom àll si moom nga xam ne yooyu gën a ma dundal wala nit sama yaay wala ñaan na ko islaam leen wute guddi wa naare ba tëdd ak laa tax loolu kenn ñaan telu ban doy xaal wax nañu ne sama xaal kam la waxoon na ko lew na way jëkkine xaaral waxoon nañu ñoom mooy ñu ne ay saam it naa àndal jaaraanu bokk naa dañ nekk trois vingt dix pour waaye saama na ci la ci naan ak jaram la ma bon ñu jàkkal la ñoom laqal waaye naa ñun de de de ñun ñun ñun waa xaaral naa ci bàyyi suñu xaaral ñu ne tekki waxoon nañu ko rek suñu baax dafa ñu wax de waaye ñu deewal ba tey kenn del déglu ñu xam del déglu ñu naan baax de jiraa alquran ci dal dëkk laa ko ci lawal ñu dara nari maam jëf yaa def ku waxal li ma ñeel kan law lu suuf wa man fiyaa ak ñu la nekk ci suuf de wax leen ma kanam moom suuf ak ñu dëkk suuf in kuntum dana yan taala mën a di xam te yaqulu na xam ne nga wax ne ñu laay ñaan la yàlla ñu laay yan ñu ne yàlla ko moom bul waxal afala tazakkaruun dana ñaan waadu di ngeen xamee ne yàlla bind suuf ak lépp lu nekk ci kaw suuf moom na ngeen def na ba jaamu leen ko xanaa di jaamu keneen ku moom bul waxal man rabbu samaawaati ci borom asamaan juróom yaar asamaan fan yi di juróom yaar wa rabbul arshi day borom aras ala bi ci ay man te yaqulu na xam ne nga wax ne ñu laay ñaan la yàlla bul waxal afala tazakkaruun dana ñaan ragal yàlla nag te jaamu ko bul waxal man deet yi ana kan nekk ci kattanam bala ko fi kulli tey moo melal lépp lépp boobu wata moom jin gi na mu musal ko sa wala ay yar da def ñu daal ci moom ci ko dum na ci kala moom moom xam nga tay xol na xam nañu am li lay ñaan yàlla def bul waxal faana ci farona mu naka def leen fa fee wali dëgg nag ànd ak taxaw ak lay ban day atay na moom ci keneen leen dina ci dëgg way ñoom na tay ñoom la taati wala way na lañu ci fa bañu xaw bokkaale ñaan yàlla be ma taxaw laa jàpp yàlla ñu wala ñu doom bu ma kan nekk ma ànd ak moom ñu yaay yàlla seen boobu ne kon gënam yàlla te saaro kon day wéetoo kullu ilahi jëpp yàlla ima xalaqa lam bind de dina kon yaar yàlla am na sax yàlla ji nekk lam bind lay moom de te man maa bind wala ala ta kon fay not wax naan la kon fay not ba doom ñu seen ara baaji ci seen te kon yaar yàlla yi xaw ñu xeex waaye te bu xeexee am te kenn ku noon morom ma de te bon doo suñu ay yàlla ay mbir lañ de subhan laa si noonu la yàlla amaa ay subhan dara danañ ngalal fa de alimul xayri yàlla mooy aji moomal fardu yàlla mooy aji amal fardu ba saa ci ak teew fa taala apelamu amay du ko dañ bokkale ko moom de wallah rabbi borom sama ima ko reer ni yam wan gama ma yo doona da def na doy leen ko suñu gën wa ta yalla yalla bu def na xalu de ñu faal ñu ñu way toñ de sama ala ko anda ñoom way na na ganun ala amri yata ibnu wa alla ma na ganun da ganun da leen ko suñu gën la xabira ya amru ko man yalla man na wala mu gën ma leen ko man na ko wala leen ñu fàtte ñaan ila ci di ko jara xam ne ñoom moom ak moom la rek yéen jéggale day dëgg parce que yaa dañu ñaaw doole buñ la loree def na lu bon wax na lu bon yow dëggal ci jéggale de naan ñun ala ma yo am ma ci bon dara ñu naa ko rek waxu la xam ne borom sama wax dina am ci def yow naan ba ci dara ci jax jax xalifa dara de ba am dina am ci def yow rabbi ya borom sama ya borom ñu ci wax man de akay ta ja ta dem bi kala ala kan ci no al no de ñu nekk ci ci takka so na ba de ci ala wax ne barne rabbi ya borom sama ñu joxon jalama daal ya nak man amal ma jox taalen def ñu de yo fa so ala jalama ko jalama bi dama la da xam kenn ne li mu doon nga am na te wax yàlla delloo mën a caa dina léegi nag gëm naa waaw dinaa la topp de sama dinaa ko rafetlu la sànqoon sànqoon ci sama biir kàllaa bi rek dellu de dinaa naka moom baatam delloo boobu kalimatum baat la mu boobu boobu moom xaay waa ñu wax la ko waaye am gan gan ndax yàlla du ko nangu de on waaye yi aji naka la dëkkam tan parce que xuma ji digale gaa yàlla noonu la dañuy def def na dekkal leen de am na nit di wax seen diggante rek dellu jaar na gëm na ñoo dellu jaar na de seen ban la ñu toog rek seen kër yàlla ñëw ñu dekkal leen nag fay saanu ko xandam wala wala sori ko bukk ba buñ walee bukk ba nag wala ñu dëkk ba ñu ñëpp dee ñu wal wali nam ñaareel ba ñëpp dee wala am sa jël arab kan tay moom di gënte ñoo may ñu dëkk ba wala da sa yoon da la nga def ñu de te bés ñu walee bukk ba teral ak kan du xam de kenn du laaj kan de ku nekk nga ci ci ngay wax yéen tuwa dina ñu ci de ñëpp jooy mais am sa jooy ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam ndax te yàlla leen góor ñi ngeen fàttali seen jabar yonent ne ko am naa ñetti barab kenn du fat bu kenn amul seekaar suñ taxawalee jaam bi fab ay jëfam yu baax teg ci bas basal bi fab ay jëfam yu bon teg amagu li la gi suñu baaxam ay baax baaxam xëppee mu dem aljanna su ay ñaaw téefam xëppee mu dem safara yonent ne foofu kenn du fat bu kenn loolu ngay xam ne say jëf yi baax la nga ne mu ma nga ci yàlla yow ubbee ko téere jëf yi naaw jëm ci jullit yi ku nekk sa téere jëf yow dina song ci xamagoo ci sa loxo la yor dafay nangoo ba dem aljana xamuloo ci sa loxo camo dafay nangoo ba dem safara yonent ne foofu it kenn du ko fat ci kenn la suñ tegee siraat ci jaanama muy wéñ goo xam ne moo gën a sew turkóor moo gën a yëngati jaan moo gën a ñëw jaasi te ci kaw safara lañ ko teg te ku nekk na ci jaar soog a dem aljana mu ne foofa it kenn du fat ci kenn de ma tax rek it nas naa jëlee jaaj pour loolu doomu baaraam laa ko doon nit dóor ñu ngi war keneen moom ñu ngi teg naa xam ci kawam ci daay li nga xam ne te te ñu ba ba jëlee doo ba ñu jëmm di ko ko jooy yaa Aaron yaa Aaron Aaron Aaron ko war di turam waxu amee dama mu ngi mu ne xale bi taxawal leen xale bi ñëpp ñëpp taxaw mu ne woo leen dina yoo ñu woo ko ba mu taxaw ci kanam mu ne ko yow Haaruna yow laa yoo mu ne ko yow xamuloo mu ne ko maa la xam ci mu ne ko may kan mu ne ko yaay ki nga xam ne liñ tooñee yàlla fa jant bay sooyee te yaa nga fa jant bay sant yi itam yow la ko yàlla yi laaj ci sa yàlla mu ne ko ndax da ngaa defee ndax suñu jaamu yàlla yi ñuy def suñu jëriñ dara mu ne ko innamaa yataqabbalu llaahu minal muttaqiin yàlla na ne ñu ko ragal la nangu seen jaamu mu ne ko suñu jëriñ ñaare yi ci yoon bi ñu daa defee ndax duñu jëriñ mu ne ko xëy na duñu rek sóore wala am saabu bay na yow ñu wala ko saaru te itam yàlla xas kanam mu fa kenn ku nekk sa jëf rek mu ne ko waaw loo loo loo yaakaar ci man mu ne ko laaj yu ci dina def ne la baara la fi naa ngi ne ci dara la fi jaar ngi la baara ñëw jëm aljana fi jaar safara la ñu dem man na dana naa ci xaajal ñaar njaboot ñu daal di mer ne ko tey ma rey la ñu ne ko déedéet ci ci bu la bu ko rey mu rey ne xam nga yéen ñaar ci gën a dox moom mi bëgg a rey ko wax ko xam jotagul ak yéen ñi ramu ko ama ama fam teew xam nga yéen ñaar ci gën a dox bu fekkee sama dee teew na kenn mënu maa ramu bu fekkee sama dig jaarul kenn mënu maa rey mu ne ko na nga ñëw am na dara ci alal daal ci bët maa mu ne ko yàlla la bind moo la jox sa wërsëg du la jox man mu fàtte ma de ma ngi sama wàll foofu mu ñëw mu ne ko dama dégg naa am ko bëri bëri ma fayal la mu ne ko bët bu fay bët de dama ci bët tuur di lay topp jaa ci jënd de jaa yow mën na ko matal de daal jënd am te daanaka ñu xasee ba léegi lu ci bëri jënd du la fa la am saa ba فمن ثقلت في سماوات وهو من لحام لكن هذا من قبل كرو في كاسة الجن من دم وكره ما تهل ومن خطر وعيك وهو سماوات وهو من لحام لكن هذا قال جنوي جيل من جانما جانما تلفون دنا لك جانما تلفون دنا لك وجوا وآخر كلام سيدنا على سفرة ده سفرة ده لين لك سيدنا آخر كلام سيدنا كوب كوب وهم يرام قال هنا ويسين لا يو yaa ci jaanama de jaanama daf leen lakk ci ñoom suuf mi dafay lakk waaw waaw di wàcc ba tëdd ci jumbax bi ci ñoom kaw ma dafay lakk waaw kulleeku ba tegu ci diggu box ba waaw dañu ne fang dara fang su ko wër naa alam takku ndax nekkuloon ayaat yi ay alquran rahmatullah dee jàng ko aleykum ci leen mbokk naa dañoo jàngutoon ci yéen alquran di leen ragal loo jëf ci de te dama na ngeen sagale ba lii dal leen kuntum ta ngeen nekk ci kër moom di leen di daa ci kàddu xaaral ñu wax ne rabbana yow ba usulu xala ban not naa dana ci moom ci xoos naa ci xaalisu ci xaale ñu notoon rek bokk naa ne kon ñu xamal ñu nit ba ñu ne jiwee de rabbana yow ba usulu axrij naa yàlla nga génne ñu naa ñu ci ci xoora tey noon naa dem jël nanu tey naa nag doon baali moon way tooñ lañu de yàlla génne ñu safara ñu dem ci àddina ci xuute tey sa ndigal nag nga xam ne ñoo tooñ de loolu ñooy safara daañu ko wax bii def àddina ñaari yoon àddina nag ñu ne juróom ñaari junni ci yàlla su fekkee ji dafa dina juróom ñaari yoon ji dafa dina ñaari yoon taal dina di juróom ñaari junne jiyaat loolu daañu ko wax fukki junne ñaar jiyaat kenn leen toll am na ñu àddina am na fukki junne ñaar jiyaat juróom junne yi kon daañu ko wax ñaar fukki junne ak ñeent ji yoon jiyaat te kenn leen toll am na ñu àddina am na ñetti téeméeri junne juróom benn fukki junne ak juróom li ma bés yi su fekkee loolu la daañu ko wax waaye li ma loolu ñaari yoon lépp yàlla yàlla nga ñu ko xam le gannaaw ñu defaat dina ñaari yoon nag ñu soxla na toll soo nuur leen gaa ji jaanama wala ci kali mu ne dafa leen waxee dama rek yàlla soxla na tontu nag ci lan ñu malaaka nuur leen ci safara fa bu leen wax dara bu leen ma ñaanal foofu la seen yaakaar di doy nag ne war na kam dañuy dem nit kaana nekkoon na pare fuñ ko demee bàyyi ci jàmm ko yàquloo di wax rabbana yow borom sama amoon naa dëggal na bokk yàlla nga baal damaa ñaan waram naa te yàlla la yërëm waaye te yow xaaral waaye dina yaay di gën a yërëm ya fa tax su moom da ngeen jàpp leen soxla yéen ñu ngi reetaan ataan sarkum dañ fàttaloo leen ci prix ay waat sama ba kurtum te nekkoon ngeen ko xakku rek reetaan ñu ci ñoom ñu naka man defee tuum fay na ma leen aliyow ma tey teewal bu dakkat la di ma sabalo ci taw ci ñun dañ mu ñoon yéeg yi ngeen leen doon yéegi anam naka ñoom mu ñoom alfaay sama ñoo di way taxa rek wala wax yàlla ci lam ñu malaaka kam naka day la bis ñu gan sax te dara ci suuf ma ngay wax ak yëfale nag ne leen ñaata at ngeen duggoon ci àddina ak seeni bàmmeel at def ñu ci ñëw ayaat alors ñu wax ne la gis naa sax man dewoon bés aw ba yéen ñu gën a dugg ñu ne àddina benn bés rek lañ saam wala genn wala bés parce que laajal wala ah dina way takk ñu lii dëgg daal laaj ko malaaka yi ba doon takk ñu xamatuñ ko dara xaala wax yàlla ne in labistum yéen ngeen di sax ilaa xalilan ndare aji néew dawaan nakum doon dana ko yéen kuntum nekkoon ngeen taala mu andi xam ne ngeen xala sax ci safara de su ngeen xa su ngeen xamoon dund bi ngeen xala dund ci safara ni mu yàggee kon na ngeen xam ne la ngeen sax ci àdduna bi guddee rek afaasitum ndax da ngeen a jortu annamaa xalaqnaakum naka bind nañ leen xarafan ngir tontu ndax ngeen a defoon ne dama leen a bind man yàlla te jubluwuma ci dara bindoon naa leen ngir digal leen tere leen de waaye nag maa naka yéen laa ko joxoon defu dara leen ngeen am ngeen jëm ci ñun ngeen a defoon a dekk amul daanaka daaw donc ne yàlla wala tontu de almaliku kay buur ala ko de aji dëgg laa ilaaha illa buur jaamu ci dëgg laa wala moom rabbul arsi mooy borom ala ko ci alkarim kay aji dëgg de woon yàlla ku jaamu na mu maa laa yàlla yàlla ilaa yàlla xala jeneen laa ko am jëru laa ilaaha illa ko bii yàlla jëru de ay na mayu saw woo na ko hisaabam nga rabbi aji nak la ko boromam de illa wala ko bii dëgg laa yu ta hadiya kafir na wala ne de kul waxal rabbi yow borom sama ko yàlla nga baal ñaal ma waram te yàlla nga yërëm ci ni waan tey waxal raay na ne yaa ji dañoo yërëm de